si gis-gisu njiitu réew mi ki Sall lii di droits humains di àq ak yelleefu doomu aadama romb na rekk sañ-sañ di liberté ak nekk ci jàmm bañ a dund benn fitna. si ay kàddoom doomu aadama ngir xelam dal mu am féex faw rekk mu mën a faj ay soxlaam di lekk ak di naan saa yu ko soobee mu yaakaar ni bu ñu naan droits humains droit au développement it. nekk na ponk bu ñu war a gën a góor góorgóorlu. war nañu considérer droit au développement comme ni ñu considérer Euh, droit humain ndax nag wàllum développement rawatina am ab euh, yokkute loolu itam euh, lu am solo la ci condition humaine ndax nag nit du liberté kese soxla na itam yeneen ni besoin yu si mel ni que lekk ndax nag pauvreté bi mooy indi yeneen frustration yi ba tax ñuy am li ñuy tuddee extrémisme violent waaye itam mbirum terrorisme yi nga xam ne dafay andi ay fitna ci yenn réew yi si discours am njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ñaax réew yi nekk si àdduna wërngal këpp ñu fexe ba xeex góom yi gën a sonal jamono gi doomu aadama yi. li ñu gën a yitte jamono ji bokk na ci jëm ci wàllub euh, xeexu mbirum terrorisme bi rawatina ci dendu Afrique moo tax conseil de sécurité euh, war na kon euh, assumer ay responsabilités am ci li jëm ci wàllug xeexuk terrorisme bi. yaakaar na ni it jot na ñu yeesalaat yéen keppaar yi. yi nga xam ne fa la dogali di tukkee bu ñu bëggee gën a jubal àdduna bi ni muy doxee muy ñaax Cour pénale internationale mu gën a farlu ci liggéeyam. Cour pénale internationale mi nga xam ne Sénégal mooy réew bi ko njëkk a war na assumer ay vocation ci ma enquête yi rawatina acte yi nga xam ne war na ko wéyal. ci discours am it njiitu réew mi Macky Sall feddaliwaat na yéene gi réew Sénégal am ngir rek a wéyal doxalinam ci lu ñeel sàmm ak ak doomu aadama yi.